asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokk yi ñu ngi am mbégte di fas yéene ànd ak yéen ci secret buy maye aljanna ñeenti mbire ngi nii yoo xam ne képp ku yàlla may chance nga xëy defandoo ñeenti yépp ci benn bés sa aljanna leer na yonent bi sallallahu alayhi moo ko jàngale woon jaarale ko ci soxaabaam yu tedd ya rawatina seyduna abu bakarin siddiq radiallahu taala anhu yonent bi sallallahu laaj ay laaj abu bakarin di tontu ku def nangam abu bakar ne man la ku def nangam abu bakar ne man la ba muy ñeent nan la demee woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane man asbaha minkumul yawma saa'ima qaala abu bakrin ana mu ne waat faman tabia minkum lyawma janaza qaala abu bakrin ana faman atcama minkum lyawma miskina qaala abu bakrin ana faman caada minkum lyawma marido qaala abu bakrin ana qaala sallallahu alayhi wa sallam majtamacna fi mri'in illaa daxalal janna rawaahu muslim mbokk yi yonente bi sallallahu da doon jibal ay laaj di ko jëmale ci saxaaba yi mu ne leen yéen ñii toogandoog man ana kan moo ci xëy woor abu bakar ne ko man la mu dellu laajati ne ana kan moo ci xëy dem ci rob gunge ab néew ñu sang ko sang ko jullee ko jébbal ko boroomam abu bakar ne man la mu dellu laajati ne ana ci yéen moo jël ñam jox ko miskin miskin mooy ku loxoom jotul ginnaawam ku ñàkk wala ku pauvre nga jël ñam moo xam ndékki la wala añ reer wala ñam bu mu mën a doon rax rek nga jox ko mu xéewlu ba sant yàlla ana moo def loolu Abubakar ne man la mu ne ana kan moo xëy seeti ku tawat ku tawat mooy ku malade Abubakar ne man la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di cay teg ne ñeent yii de képp ku mu daje ci yow ci benn bés sa aljanna leer na kon yow Aboubacar nitu aljanna nga ndax defandoo nga ci benn bis ñeenti mbir yoo xam ne kuñ ku mu daje ci moom benn bis rek aljanaam leer na mbokk yi kon képp ku bëgg a dem aljanna xëyal bis nga woor dem ci rob joxe ñam te jox ko miskin muy ko loxoom jotul ginnaawam seeti ku feebar mbokk yi dem leen ci suñu chaîne YouTube bële di yaatal xeltu yin ngeen abone ca di seetaan suñuy vidéo di ko commenté di ko aimé ma leen di fàttali ne euh, lien wu chaîne YouTube bi mu ngi ci kaw euh, profilu TikTok bi bu ngeen ci cliquer rek da leen di yóbbu ca chaîne ba directement wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.